dégg wax ji dama ne gars yi. waaw am na ci gars yoo xam ne ñu jàng ñi am na ci pour ñoom yaakaar nañ ni soo jàngul école defoo nii rek waroo tabax waroo defar waroo def lii te fekk ni tey àdduna bi li koy doxal ñëwoon démb ak ki démb am nañ ci bëri ñoo xam mosu ñëw toog ci ban école. Kocc Barma. ah Kocc Barma li muy làkk tey moom la gars yi euh, tey ñi ëpp xaalis ci Sénégal aussi. Hmm. jànguñu est-ce que sàcc de. comme ma liggéey ci xaalis saa ci ko de. ñu xaalis. ñu ëpp xaalis nga xam dañu ko liggéey. Sénégal tey waxal benn Bocar Samba Dièye. waaw waxal ñaar euh, Alioune Dia. waaw euh, bu Sénico. waaw Alioune Dia waaw ñetteel bi waxal ñett. Euh, borom Kaolack CBBM. ak borom Kaolack waaw mooy CBBM mooy Serigne Mboup. Serigne Mboup. ñëpp xaalis Sénégal tey laa la wax jànguñu. mais mais mais jànguñu. lañu jàng. man li ma gën a métti ci Sénégal mooy. en général wax rek ñoo xam ñi xam noppi nañ bu yàgg parce <laughs> que saaga mënul gën a ñaaw. Hmm. nga lim ay nit ne la jàng na jàng du jàng nasaraan kese adduna sax jàng la nga dund ba am vingt ans jàng parce que lu mu dee dee dee am nga expérience. non mais bu ñu nee jàng lu tamit déggeel la. non Cheikh ñu Cheikh non non bu ñu nee jàng li jàng nañ. jàngul tubaab eh, moom laa la parce que boo xoolee tey quand on parle. c'est intellectuel français bi la ñu wax parce que y a des intellectuels en ay arabes. waaw et tout ça mais mën na mën ne Sénégal fii tey. Ah. sooy xool suñuy wax ku jàng. préciser wala ku moom laa la wax. li nga xam ne dañ ko préciser dañ ko eh, préciser tubaab. mais ni ko préciser léegi tu vois eh, eh, eh, la wax léegi léegi nga préciser léegi nag mën na la tey boo xoolee boo nee toogul baa daal boo demee léegi kokki dañ ko préciser boo demee kokki ñu ngi fay jàngale xam-xam te xam-xam bi ñu fay jàngale yëpp nit ñi ci ay classe lañuy toog ci ay baa lañuy toog li ma dikk wax jàng jàng jàng tubaab jàng lu bees la Sénégal par rapport ak histoire Sénégal loolu yàggu fi jàng tubaab lu bees lu Sénégal lu bees la jamonoy colonisation lañ ko fi indi am balaa colonisation Sénégal histoire am yàgg na donc en fait bu ñu demee ba colonisation ay 19e siècle la 18e 19e siècle Sénégal mënoo ko natt ci 18e 19e siècle bien vrai que colonisation bokk na suñu histoire am na yu bëri yoo xamante ne dugal na ko ci biir Sénégal mooy ba ñu dem bay jaawale njàng ak njàng tubaab. ñun ñoo Sénégal bu dee kii jàng na rek commencé ñëw ci Sénégal diine ñi ñoo ko fi dugal mag ñu baax ñi wax mag ñu baax ñi ñoo ko fi dugal diine. waaw ñooñu tamit avant euh, am na ñoo am na suñu ñoo xam ne avant colonisation am ñoo xam pendant la colonisation. donc de de bu parce que boo ma waxee dafay vague. histoire ci ci wàllu histoire. Serigne Touba. xaaral xaaral colonisation. ci wàllu histoire. Serigne Touba. fa la fekk waaw ci wàllu histoire. ñu ngi jàngale ni diiné dugg na Afrique. Hmm. depuis jamono 13e siècle xanaa rek ma ñëw dama ñëw foofu ngay wax non Sénégal la jëm bu ma bo yobé Afrique diko yaatal da ngay yàq débat. ñun liñ mëna wax moy on parle non xaaral on parle du Sénégal ñu yëm du Sénégal tamane ne diine l'islam kañ la commencé dugg Sénégal. waaw loolu mënoo ko xayma. avec précision li nga mën a wax mooy ñi ci fës ñi nga xamante dañ ko fa dugal ba pare mbuboo ko ñu xamee leen ko ñooñu jamonoy colonisation lañ leen xam. voilà kon nag suñu mais balaa ñooñu. non non non déedéet am na ñoo xamante ne ay ay nitu diine la ñoon yow balaa ñu la wax koo xam ne xamuloo ko ci kiñ la ki nga xam rek mooy nga mën a wax ñu ko fi dugal ñi nga fekk ñoom ñoo fekk ay ceddo ñu tuubal leen. yaa ngi dégg comme Serigne Touba comme moom maam Maodo ah, Malick comme Baña c'est-à-dire que ñoom seen jamono ñoom ñoo fi ñëw fekk ay nit yoo xam ne gëmuñoo dara ñu gëmloo leen dara. Ah, xanaa mais boobu fekk na fi ay tubaab. am dara yaa ngi nii doo ko dindi lan lan moo tax ma laaj la benn question lan moo tax Serigne Touba. Hmm. Hadj Malick. Hmm. Cheikh Oumar Foutiyou Tall yooyu ngay wax. Hmm. loolu ñëpp ay Fuutànke la lan ma waral loolu. lan ma waral loolu. waaw mooy laaj. waaw ah, voilà parce que man boo ma déglu woon ma indil la loolu yëpp ba nga xam lan moo tax nii. déedéet parce que diine dugg na Sénégal balaa Sëñ Touba du diine dugg na di ñëw. diine dugg na Sénégal balaa Cheikh Omar Foutiyou du ñëw diine dugg na Sénégal balaa Haj Malick du ñëw. ñooñu tam balaa ñoo ñëw colonisation mu ngi doon. ma diine moo fi njëkk colonisation. colonisation colonisation dem na ba sax ba benn instant muy xex diine. non ko mën expliquer. voilà parce que loolu la lay wax ni ma Afrique wor nañu ni historien yi 13e siècle la l'islam dugg Afrique Afrique du nord par ci au nord bi la jaaree loolu lañuy ñuy wax euh, la les sax la les les inventions de la des almoravides ay almoravides ñoko fi duggal pour xëcc ci xeex mais bi ñuy ñëw aussi yegguñu ba Afrique centrale ni Afrique du sud. ñoom ñu ngi yem Afrique du Nord booy xool Afrique du Nord dañ koy dañ koy natt ci Égypte Maroc Algérie Mauritanie yaa ngi dégg Sénégal frontière am ak Mauritanie Fuuta la donc l'islam buy dugg ci senegal Mauritanie lay jóge jaar Fuuta moo tax fuutaanke yi ñu si bëri ñoom ñoo njëkk nekk ay jullit ci Afrique ci ci ci pa ci ci euh, ci Sénégal te booy xool kilifa diine yi ñu tudd ñii ñëpp ñoom ñëpp Fuuta lañ jóge ñëw samp donc en fait nous ñoo certes indi tout. gi fu mu toll bi ñuy commencé jamonoy colonisation d'accord nak ci yow mais bi l'islam bi commencé colonisation amagul woon. mais léegi comment kon nan nga ma 13e siècle. mais boo ma nee treizième siècle loolu fenen nga may wax man Sénégal la Afrique buñ né Afrique du Nord Sénégal sorewul ak Afrique du Nord parce que déjà de Mauritanie buñ do calculer Mauritanie Afrique du Nord fa la yem te Mauritanie ñu nak am nañ frontière donc cela veut dire que limite géographie Mauritanie et Sénégal. dans perception ça, perception. perception cela veut dire que Sonner, parce que du nord la ainsi de suite après pour nous, ay lañ non non non non non. nous ngi fait ci Afrique kon Quand vous rattacher Maroc la Mauritanie mu non non non non non ça n'a rien à voir Poli, nous ñu ngi yow yaa wax de man de boo mënee caméra bi ñu delloo waat affaire bi. waaw futanke la moo waaw futanke pël de. futanke euh, voilà futanke futanke xeet la ci biir pël yi. pël la mu euh, euh, waaw d'accord pël la. pël la fuuta comme bi mu nekkee pël fuuta. waaw pëlu jembere. waaye ah, futanke laa am différence. pëlu géeje yëpp bo lan moo jiitu.

mi ngi jóge dans le boo demee Medina Medina Gunaas. xam nga ñun boo demee Guinée. waaw am na ñuy wax ne ñoom pël yi am nay pël yu wax foofu ne ñoom ay descendant wu Abi Hurayra la directement c'est-à-dire que la jóge wàcc foofu directement parce que bi gars yi di ubbi di dem Abu Hurayra la am na ñeen ñoo xam dañu kii foofu foofu la ñu jóge directement.

waaye gars boobu day doon kii rek kii te te te ñu defoon fi film moom la di xeex. Koli Teg Ndala. non non pas Koli Teg Ndala kii. Euh, Kunta Kinte Kunta Kinte ban année la. non loolu esclavage. loolu moom la waaw Kinte waaw Kunta ah, ah, esclavage moo indi colonisation non. déedéet moo ko indi parce que boobu la ñu découvrir Afrique colonisation léegi nag ñu jël. mais amul conséquence cest foofu la. tàmbalee ñu lay jaay benn affaire bu bu bu polémique bu fi jëmee indi caxas affaire. dama ne ban année la. boo ma joxee année bi rek ñu suufoo ban année la loolu. amul xam nga livre bi ay yoratuma ko te fi mu ne gis naa ko si ban année la. Kontaakiite Gambie la de yaa ngi wax Gambie de. Gambie fu mu nekk. Gambie Gambie la ne. non Gambie fu mu nekk waaw Sénégal fu mu ne. doo la ne. yow Gambie fu mu nekk. Gambie Afrique Afrique Eh, Babacar kii amatul de débat man bàyyi mën na parce que kii day day sawar parce que fi mu koy bëgg a indi da koy bañ parce que xam nañ ne après dañuy juboo man ak moom mais gis na da koy lànk da koy lànk da koy lànk Gàmbi la nekk Gàmbi fu mu nekk Gàmbi Gàmbi la nekk Gàmbi fu mu nekk maanaam Afrique colonisation bi balaa ñuy ubbi foofu mooy mooy di ne fii dëkk fii la bi la Gàmbi fu mu nekk boobu sax mën nañu wax Sénégal tamit waaw mais dama lay laaj léegi mu nekk bàyyi ka léegi wax ma fu mu nekk Gambie boobu Sénégal la. moom bëgguma sonal. avant colonisation. Eh, waaw avant colonisation amuloon pays amuloon ay pays. waaw non mais waaw léegi ay ay royaume ñoo fi. da Gambie bokkuloon ah, d'accord na Sénégal sax nation Sénégal sax moo amul woon. Gambie fu mu nekkoon léegi mais même là même royaume yooyu Gambie fu ñu ko doon féetee. bu Sénégal boo doon di dem di dem di dem Casamance Gambie fu mu bokkoon. boo jógee di dem Casamance. te fekk xam nga boobu Casamance mu ngi am. waaw Casamance bokkuloon Sénégal en amuloon

ko baw ko baw ma no yow lii na fi muusu war nga doxal caawa mu ataaya kii bëri naa jooju parce que muusu war nga non loolu waxuma ko Babacar moo moo moo ko cité benn jour non man tey comme yaa ngi xas ne pare naa ci waxtaan di nga pare de eh, parce nga bëgg dabb rek parce que man kañ laa wax loolu comme sa man pare naa ci waxtaan bi billaay wallaay talaay bu ba mu jógee France dafa dof wër na borom daaru bokk nañ ci ñi nga xam ni ñoo ko indi indiwaat carrément. redressé ko redressé ko. mu jëlee fii tam xam-xam. bañ ne bu egsee fii dina posé benn débat loo wax mu xëpp ci kaar yi dem na sax booy wax yoo xam ne sax yow da nga naan kii dafa dof mais boobu xam lu lan moo tax mu doon def loolu xam-xam la doon wut si. billaay wallaay taala du caaxaan parce que dem na ci nasaraan si li mu jàng ci la ko jàng ak ay kayit mais nag am na du question da ngay rek après xam-xam bi daal di ñëw des na nag yeneen affaire yoo xam ne dafa am foo ko war a jëlee. bi mu ne tëll ci atelier bi ah gis gars yi différence des actions yi moo xam ni kii lii mi ngi ci moom pour ma génne ko ni lay def booy bi jënd na ataay bi ba tay ne ñëw jënd caay teg jënd jënd na peer teg jënd ay affaire bagage yu bëri ñëw teg yooyu yëpp ba pare posé débat mais yooyu yëpp da ngeen yaakaar ni pour euh, c'est pour rien déedéet c'est pas pour rien da ko doon def parce que am na lu mu bëgg te li mu bëgg nag yàlla suñu borom dimbali na ko ci loolu tey dem na bañ ko woo ay mais à cause de quoi ñaata personne ngay gis ñuy jàngale ba mu nekkee xale moom ba ni mu nekkee mag ñuy jàngale te kenn musu leen invité ay ay débat toog ñu leen di wekk ay micro ñuy wax mais bu question da ngay jàng rek tax ñu war laa mën a wekk micro déedéet mais dafa am fu mu jaar jàng fa jële fa ay tuuti xam-xam am fit xam ni fi ma nekk ni di fa waxtaan hmm. su ma su ma fi génnee mais fu ma woo fu ne war naa fa mën a waxtaan hmm. loolu muy indi ñu koy ñu koy ah, invité ay débat Ayo professeur professeur waaw Songe. oui bari na fi doon mais nag fayul naar ba xoromam ndax heure bi dafa waroon fekk mu ñëwee kat na ah vraiment samay grand frère ngeen bi ma nekkee ci babi bi di PFA ah yaa ngi dégg yàlla dimbali ma ak suñu waa kër ba dem France jàng ji bi ma ñëwee ci atelier bi laa jubal si mais vraiment xam-xam bi ngeen ma baaxee ak jàngat mi fi jàng lépp lépp vraiment mang leen dekkon delo jukka sa wi euh, weer dee ba mu ñew fi jënd ataay indi jox ñu àllarba. dëgg la mais c'est dommage. xam-xam fi nekkon dem bañ mën ko koo te yalla dimbal ñu tamit. bo mu gëna yok yokk ah gën naa yokk. Ah, gën naa yokk la nga doon root démb tey la fi gën a am. parce que yow mi am xam-xam. ndax àdduna non ça va xoolal déglu man xoolal. damay laaj benn question rek boo ko man ma xam yow nag léegi yow li ma li ma jàng yaa yow mi am xam-xam. non man mi am. waaw waaw waaw waaw dama ne waaw ma ñu waaw waaw d'accord waaw. da ngay ñëw ci atelier waaw waaw ma ne. yéen ñi am xam-xam léegi ma bàyyi ma jaar foofu mu gën a yomb xam-xam. loolu ñuy déglu waaw na commencé ci yow. non pas lan mooy xam-xam. ak lan moo ko uteel lan moo ko uteel xam lan moo utelee xam ak xàmmee. nga xam nga bonaan bonaan xam-xam lan moo mooy xam déedéet déedéet dama lan mooy xam-xam. lu ko wuteel ak xam. lan moo wutale xam ak xàmmee Babacar Babacar pour ma wan ne leen man am naa xam-xam balaa may wax ak yow Babacar dama la bëgg wax rek Babacar toppul ci taat bi Babacar dafa am benn affaire bu ma la expliqué léegi léegi dama ne bu yee ñëw jóge na dem na France laaj bi xam-xam laa lay laaj de dem na France ñëw jàng na ci ay këyit ci ay tubaab ndax yaakaar naa ne bu dee jàng rek Sénégal fii ñoo ngi jàngale mais bu gën sa xam-xam yaatu gën a ta kawe nga dem ba France tubaab bi jàng yaa ngi dellu gannaaw de yaa ngi ma dégg avancé nañ wax ci waaw bi nga nee cëpp accident nga dofoon nga. nit ki bu la laajee boo xam da nga koy da nga koy laaj bi ci nga ñëwaat fii ci place bi. waaw ah. mais façon débat bu nekk xëcc nga ko fi teg. waaw dëgg la ma ne. yaa ngi dégg na benn instant boo xam ne léegi du ma sax ndax yaa ngi yaa yaa nit mënul matal lépp quoi ah mais am na loo fi jëlee lu bëree bari mais pour nga xam ni yow am nga loo fi jëlee lu bare bari mais yaa ngi koy wane fu mu nekk nii mais waroon nga mën a delloo naar bi xoromam waaw naar bi laay laaj lan mooy xam-xam non mooy lan lan moo ko wutaleeg xam waaw yow lu wutaleeg xam ak xammee Babs à la prochaine xam naa ni am na léegi boo xamul da ngay delloo laaj ba am na débat bu ma bëgg ak yow fii nii sama yaram mi ngi bëgg tàng mais dama xaw a sonn quoi euh, prochaine fois ah dinañ def benn affaire boo xam ni man la ak yow jar na sax nga ñëw fii euh, ñëw place ba ndax fi ne nii xam nga mardi soo neexee suba mardi maa ngi sama place ñëwal nga toog ah ñu waxtaan ñu yaatal ci affaire boo xam ne xam naa ne bu génnee dina yéem ñu bëree bëri ma ne ko xamul li xam li xam-xam ngay mënee waxtaan ci xam-xam ngay mën a wootee xam-xam te xamoo luy xam-xam wolof njaay xam nga lu muy wax xam-xam benn ndeysaan sama suñu benn paa bu baax dafa ne ay jamono dafa jógee fii dem benn dëkk bu naan Côte d'Ivoire ndullu maaji mu demee Côte d'Ivoire ñu ne waa ji kii seer dëgg la quoi xamul ci li muy def dara kii ngaaka la affaire yooyu nee na bañ koy wax boobu Alpha Blondy ma nga fool Alpha ah, Blondy daal di wax leen nit fu mu musul dem dem fa seer nga fa da nga wax ji nit ku nekk nag ca la ngay liggéey ah kii yàlla suñu ah, borom may na la ci xam-xam ndax xam naa wax xam-xam dafa bëri ay matière xam nga waxee nii xam-xam nanga la may xam bi mooy lii moom dafa bëgg mais xam-xam bëri ay bagage tey maçon bi li muy def da am xam-xam moo tax mu koy def mais pourtant nag moom sax moom ci wàllu boobu ah mataluwul lépp de am na loo xam mën na ko am loo mu mënu ko dañoo bañ ba dem jëli ci kenn koo xam ne balaa lay def <laughs> mais boo ko tabax loolu tabax pourtant <laughs> bu léegi ci biir bâtiment bi la nekk loolu may xam-xam yaa dégg xam-xam xam-xam dafa bëri te wuute ku nekk ak gis àdduna yow xamal li nga xam man ma xam li ma xam ah keneen xam xama jàppal ni keneen xam na li mu xam yow tey même ci li ngay def nii sax am na ci koo xam fa mu àgg yow àggoo fa am na ku la ci jiitu foofu ah, nga xam ci yow lu mu xamul moom kon loolu ci wàllu lan la ci lan la bokk mais gars